juróom-ñett juróom-ñeent ci Parcelles Assainies ak Mariste juróom-ñett ci kawlax juróom-ñaar ci Saint-Louis juróom-benn ci Wokam juróom ci Diourbel HLM Thiès ak Tivaouane ñeent ci Diamniadio ñett ci Dieuppeul Grand Mbao Joal Guédiawaye Khombole Liberté 6 Mermoz ak Thiadiaye ñaar ci Grand Kolda Liberté 4 Maka Koulibantang Nioro Ouest Foire Pikine E Tambacounda Thiaroye Azur Touba Vélingara et Zac Mbao benn ci Amitié 3 Arafat Cambérène Cité Kër Khadim Cité Port Cité SHS Cité Soprim Cité Takko Koki Janké Maha Diofior HLM Grand Yoff HLM Grand Médine Kaffrine Kër Massa Kër Mbaye Liberté 2 Mamel Matam Médina Ñaari Tali Nord Foire Ouagou Niayes Petit Mbao Pout Sakal Sicap Baobab Sicap Mbao Sangalkam Sébikotane Sokone Thilogne Yeumbeul ak Yoff ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi malade ci ñi entré woon ak ñi toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde juróom fukki malade ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb dibéer juróom-ñaari fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu topp ci kër yi ñu ngi am tànn ci bésu tey dale ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak juróom fukk xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñ ñaar fukki ak ñett ak juróom téeméer ak juróom fukk ak ñeent wér nañ si juróom juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróomi téeméer ak fukk ak ñett si loxo docteur yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir hôpital yi ministère la santé l'action sociale mu ngi ñaanal ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi topp ci kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali na aar seen bopp aar njaboot aarale askan wi.